Boulen faté abonné abonné ci une chaîne YouTube. Samsu TV jant bi leeral àdduna. te activer cloche de notification Bobé, ngeen di seen ci seen écran. Samsu TV moi suis une télé. Samsung TV, Samsung TV Samsung TV, Samsung TV, Samsung TV Samsung TV, Samsung TV Samsung TV, Samsung TV, Samsung TV, Tele TV, Samsung TV Samsung TV, Dele TV, Samsung TV Samsung TV, Samsu Samsu Samsu TV Samsung TV Lani Bege TV, Aljana

kan mbokk yi ñu ngi waxaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy topp ci chaîne bi di Shamsu TV Euh, moo xam téléspectateurs yi moo xam internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara euh, di nuyu waa xadara bi yëpp jiital ci cene ba Baye Serigne Hassan Seck di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko ci kanamu xadara bi euh, di nuyu umma islamique bi yëpp. bu ko defee rek comme ni ngeen ko gisee ci image yi jàll léegi ñu ngi fii ci cene ba Xabaan. ñëw ci gàmm gi nga xamante ni mooy gàmmuk euh, Thiénaba Xabaan wala gàmmuk Maam Daawud Diop tey di dima euh, samdi euh, le 14 mai 2022 ñu nekk nag ci bërëb boo xamante ni bi yaakaar naa ni bëriwul ñu ko miin bëriwul luñ koy gis ci ci tele moo xam internet la moo xam fu mën a doon waaye ak fi jamono toll borom bërëb bi ak borom dëkk bi yaakaar naa ni am na solo nag am na solo nit ñi xam bu baax a baax a baax kan mooy maam Daawud Diop looloo tax Shamsu TV ñëw fii ci gàmmu gi eh, ñu taxaw ci bërëbu maam Daawud Diop ak sëtam bay eh, Serigne Diop. yaakaar naa ni eh, ñi nga xamante ni bii xam nañu kër Serigne ba maam Amary ak Seck xam nañu bàyyi Serigne Diop waaye nag eh, ñu présenté leen ko rek mu nekk président axlu seexu Thiénaba buñ ne axlu seexu Thiénaba ci ñi ko mooy ñi nga xamante ni bii eh, rénovation bi ñuy def ci réew du maam Ahmadou Ndack Seck boobu ñoom ñoo ko yor Baye Serigne Diop mi moom moo jiite liggéey bu rëy boobu nga xamante ni bi yaakaar naa ni mën nañ ni sens la mën nañ ni mérit la sens la mooy ku nekk bëgg bëgg bëggoon nga ko jiite waaye yàlla daf na moom moo ko jiite mérite la aussi itam taxawaayam ci kër Seexu ba yaakaar naa ni mérito na jiitu liggéey bu mel noonu sët la ci maam Daawur Diop mi nga xamante ni bii moom lañuy ñu wooteel fii tey ci ba Xabaan moom la ñuy dékk suñu mikro bu ko defee rek mu waxtaan ak ñun ana kan mooy góor gi tëdd ni waaye cosaanal gàmmuk euh, ba Xabaan Baye Serigne euh, Shamsu TV mi ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Serigne Mar. Euh, di wax auzu billahi min ashaitaan rajim bismillahi rahmaani rahim. subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki bitim réew mbokki biir réew mi képp koo xam ne yaa ngi nuy seetaan ñu ngi lay jox suñu nuyoo ginnaaw bi ñu nuyoo kilifa xadara bi Baye Serigne Xasan Seck yal na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér ak mboolem njabootu Cheikh Canaba di nuyu Baye Maodo Diop di xalifa maam Daawur Diop sëñ Maar jërëjëf di nuyu wa Shamsi TV di nuyu eh, El Mar yow mi ko jité di rafetlu sen taxaway ci gamu ren gi tabarakallah yalla fay len alhamdulillah eh, di nuyo di wax ni nak ñew ngeen ci fi nga xam ni mooy ba xaban wax ba xaban wax gor gi Daawur bi ram bay fay mi nga xamni ni ando nak nijaayam ju bax ja Cheikh ba xare ba xare Samba xare yoy lu ko waralon moy yëkkati kalimatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo tax eh, dañuy wax ni lislaam ñi ci ëpp mérite ñi ci ëpp garaat mooy ñi jihaad fi sabilillah kon nag góor gi tëdd fii tax ñu waral gàmm gi bokk na ci ñi yàlla darajaal ci lislaam te daraja ji yàlla joxe wax ko ci alquran ba mu koy définir dafa wax ni wallazina haajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim azamu darajatan hindallah nee na ñi jàddaay ab dëkk ndax ñoom dañoo gàddaay dëkk ñu ngi dëkkoon Canaba Kajoor dëkk fa nekk fa ay at xëy xëy maam Cheikh Amadou Ba doomu Seydina Limaamul Ba yu Ba bind leen lettre en 1871 ni maam Amari Ndaak ah tubaab bi kootoon naag buur yu ñuul yi nee nañ duñ fi waxee laa ilaha illallah Seydina Muhammadu rasulullah bi mu ko woowee moom fekk na mu yoroon daara ca Canaba Kajoor daa tas daara ya jéggal soxna ya dénkaane doom ya waaye nag ni jarbaatam bii ak maajooju faali ni leen yéen kaa leen ñu waaj wuy ji seexu ndax yàlla cër bi ma cërale ci diine looloy seen cër mooy ay mujahidin lañuy doon kon nag bu yàlla ne ñi gàddaay ab dëkk ba pare na xare ci yoonu yàlla joxe seen bakkan ak seen alal ñooñ ñu ëpp daraja fa man kon nag borom daraja bu tëddee fii defe naa ni ñëw ziar ko lu jaadu la lu war la ca na ba xabaan nag dafa am historique bu rëy ren damay wax ni maam Daawur dama bëgg waxtaan tuuti ci moom ci ay jalooreem ci ay mayam ndax ñu bari dañ koo umpale te damay wax ni maam Daawur dafa am mérite ndax dafa jël jeunesse am jox ko yàlla bi muy wuyu ji yoonu yàlla booba 21 ans la ñaar fukki at ak benn booba la nga gis ni wàllu àdduna sax buntu àdduna ubbeeku woon na ci moom ndax booba jamono li ñuy wax force espace ñoo xewoon muy euh, li ñuy wax militaire force militaire nga xam ni da ngay rengagé ñu lay fay salaire nga bokk ci armee tubaab bi waaye jamono jooju bi ñu ko gisee ak corpulence am ak njàmbaaram ñu ne kii kat ku ko dugal ci armée bi dina mën a dimbali li nga xam ni mooy armée bi waaye moom ndekete yàlla cëralewu ko loolu wax nañ ni sax joxoon nañ ko fa ay dàlli ramjeuse yoo xam ni dañ ko koo joxoon ngir muy ñëw ci entraînement boo xam ni ci benn camp la woon bu nekkoon ci tund luga ndax moom mi ngi gañee àdduna ca Farboon waaye euh, maam Amari ba leer bi ñëwee dafa fekk maam Daour maam Daour nag maam Amari Ndaak di ko waajal ñu wuy ji Cheikhu moo tax tabaarakallaahu maam Daour bàyyi buntu àdduna boobu ubbeeku woon topp buntu yàlla ànd ak koy juróom ba ñu wuy ji Cheikhu amadu ba ñu xeexee ba xeex jeex ñu yenu seeni bagage nag di wër ca na ba bawal ba gis ko ci en 1882 réeroo ga ci am ñu bari xamuñu ko ak la ko waraloon mooy mam amari ndaak daa toog woon benn place juróom-ñaari at lu wër pàkk ca na ba bawal demoon na fu ñu naan pirum ndëri demoon na fu ñu naan mbaaw demoon na fu bari ci réew mi jaayaan gi ñuy wax sax taxu ko woon jóg la ko taxoon a jóg di wër pàkkub bi mu ñëwee ba jaayaan la ko maam seen jaayaan gis xar kanamam mu leer lool rafet lool mu am ci moom yaakaar mu ne ko yow foo jóge mu ne ko man minallahi ci yàlla jóge mhm. foo jëm maam sëñ janaba Amari Ndaak ni ko ca yàlla laa jëm mhm. mu ne ko yaay kan mu ne ko ana abdullahi jaamu yàlla laa mu ne ko kon yow mënuma laa bàyyi mhm. may naa la fi suuf may la fi pàkk dinaa la fi may soxna dëkk ko fa yu bare bari moom musta nangu dëkk fenn fa dul ci juma maam Amari Ndaak ci jàkka la daan dëkk ci wetu jàkka samp fa daan fa tëral di fa jàngale alquran di fa jàngale xam-xamu diine bu daan dëkk ci dëkk ba yàgg da ngay gis ni daal li buntu néegam day ëpp daal li buntu néegu borom dëkk ba bari na dëkk bu mu jógee looloo ko fa jëlee tabaarakallaa maam Amary ndaag nag bi mu sancee Canaba Seck en 1882 maam Daawur Diop mi ngi woon ci tundu Kajoor yor ay waxandeem yoo xam ne téeréem la defoon ak i bagaasam ñu wax ni góor gi kashfu bi ko yàlla may bi maam Amary Ndak sancee rek dafa wax rakkam maam Tafsir Njaga Diop ni ko sama sëriñ ba sañc na leeram nga fa ma doon wax jot na ci kon dama koy wuy ji yóbbul ko ay bagaasam fekk na boobu maam daawar moom sanc na fii boobu maam daawar sancagul fekk na sancagul ci ginnaaw bi maam Amari Ndaa génnee àdduna ci lay door a sanc xabaan moo tax bi mu jógee foofu indi wax ne a bi maam Amari Ndaa génnee àdduna la maam daawar door fii en 1897 ñu jàpp dat boobu bu baax a baax 97 ci la sanc dëkk bi kon dëkk bi am na téeméeri at mhm. waaye mu sancee ko ci contexte bu doy waar boo xam ne bi muy ñëw tund jobaas fii lislaam sax duggagu fi woon mu nekk tund boo xam ne dañu woon tàtt àll bu lëndëm waaye yàlla indil ko fi ay kéemaan yu kawe ndax bi mu ñëwee fii ba ci tund jobaas am ci garab gu mu wéeru dégg ay picc di di sab moom daaw maam daawur mu ne xoolal leen ma picc yi di ñuy sab picc yi di sab di mel ni ay tama yu tëgg ñu daal di yëndu gis ab teen bu bët ñu ne ko lii de daa mel ni ndox la bu mu yëndoo rek teen bi daal di bëtt bëx bëxi ba génn fekk lañ fi ñu nekk mu ne lii de kéemaanu yàlla teen boobu mooy teenu defele xam naa di ngeen dem découvrir ko yàlla ko bëttal boppam jox ko maam daawur moom mooy première kéemaanam ci dëkk bi mu daal di koy tuddee defele ñu ne xaal bi mu fi duggee moom maam daawur yàlla da ko jox teen boobu ngir defale ko ndax fu mu jaar rek ndox la loolu xéewal la ba tey xéewal gi moo ko topp ci bisam bi ba foo jaar gis fi xéewal maam daawur nag nekkee fi noo xam ni lislaam la doon liggéeyal woote séeréer yi nga xam ne fekkoon na leen fi ñu ci ëpp ay tuubeen leen moo leen tuubal dugal leen ci lislaam keroog bi muy jóge Canaba tey maam Imra Penda sekk mi ñu tuddee bis bi dafa jooy téye ci loxo maam Daawur maam Daawur jooy mu ne ko li ma lay ñaan mooy foo mën a sànc ëllëg na ko tuddee Canaba mu ne ko man fu ma mën a mën a dëkk ëllëg Canaba laay dund. maam Imra Penda moo ko waxoon loolu ndeysaan moo tax mu tuddee Canaba Canaba gii Canaba xabaan tabaarakallaahu maam Ibra dafa xam naa cérémonie bi tey dinañ ci ñëw ak maam Daawur loolu li ko indi mooy bàyyam maam Amari Ndaak dafa mel ni ku leen seexale woon ndax danoo nuroo woon mag nettali ne ma di soxna ndogay mbay sekk ni ma nangoo na ci maam xaar mi jur baytaal xaar ni maam penda mbay mi nga xam ni moo jur maam maam maam de penda nee na da daan dañ ko daan laaj ni ko ñaari seex yi lu tax ñu magante ndax différence d'âge dafa am. ndax niroo nu niroowee ndax danaa gis ni maam Amary Ndaw bu xottilee maam européenne da même tissu lay xottil maam Daawur. xanaa xamoon ne maam Daawur léppam ba mu nekkee mag sax léppam maam Amary Ndaw da koo gàddu woon. ba pare def ko homme de confiance am lu mu bëgg rek moom la koy wax. moo tax mag ñi dañuy nettali naan maam Amary dafa am wax ju muy wax te duñ ko firi. dañ li ma am ñi ma am laa koy jox. ñi ma am bu mu jeexee li ma am jeex moo doon wax loolu xam nga lan moo indi loolu dafa amoon ñaari doom yu ñuy wax maam jëmb ak maam ab saatu bi ñu déggee ni seen bàyyi sanc na canaba Bawol ñoom it dañoo ñëw seen seen wayjur indi leen ñu bari bëgg leen ci réew mi ñu ne leen doom bàyyam du dund ñu koy maye sariya nanguwul loolu bi ñu ñëwee nag ñu bari topp leen bëgg leen maam amari ndaag daan ni jëmb jox naa ci ko maajoojo Fall ma ma àndaloon daan ni ab saatu jox naa ko daawur Jóob maam maam ab saatu moom mi ngi ci mi ngi ci armeelu xabaan yi amoon amoon na doom ju ñu tuddee soxna Fat Diop moo tax mu ne li ma am ñi ma am laa koy jox li ma am bu jeexee ñi ma am jeex koo kookoo gore koo ko yar maam daawur maam jëmb maam ab saatu ma ko ñaari jarbaat yi maam maa joojo faale ñi mu àndaloon xam nga ni ko gor piir la gor piir la moo tax maam daawur loolu la doon yàlla na yàlla fayal nu ko bi jaayi seydi wujud sallallahu alayhi wa ko dafa jar di waxtaane léegi wax naa ne tey ci suba biñ koy ziyaara damaa ñëw di waxtaan ak suma benn baay ma ne ko baay góor gi yàlla nañu ko yàlla fayal ndax maam daawul mii Sénégal war nañ koo xam barab bi barabu ijaaba la lu tax muy barabu ijaaba alaaj taale si sa ñëpp a ko xam yàlla na yàlla yokk leeram daan nañ waxtaan ba dugg ci waxi baatin mës na maa nettali ni ma Cheikh Umarul Fuutiyu dafa top leeru maadiw diko top, diko top. ko topp ba cana ba xàbbaan gii la ko mujjee gis fii ci fii ci barabu maam maam Daawar Jóob Baay Alaaj Taali Sise moom a nettali loolu waaye li ci du ki ko nettali muy gi bu la nga dem interroger ko muy sëriñ Ousseynou Diop di dom ci maam Njaga Diop ni taw billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa nekk naa ab sëriñ boo xam ni doomi soxna la ci réew mi ñu bokk benn néeg mu ne ma yow de dëkk bi nga guddi gis nañ fa wëlliyu yàlla Cheikh Omarul Fuutiyu laa àndaloon dem ca dëkk ba ziar ko jullee na fa ñaar rakk ci garab goo xam ne dafa am meññeef ci bunt ci bindu armeel ya moo tax bi ma nettali li alaaj taal si si wax moom euh, lu bari feeñ ci qualité yu bari feeñ maam Cheikhu dañuy wax ne daa faatu ci nettali ni faatuwul xam nga kan la maam Daawur Jóob la lu bari duñ ko nettali maam Daawur Jóob mhm. moom la Cheikhu woo mu ko mujjee defal mu jàpp mhm. keroog bi asamaan di yées moo ko seede moo góor gi Banda góor gi Banda ak maam Daawur ñoo seede bi nga xamee ne force espace yi song nañu maam Cheikhou Amadou maam Cheikhou Amadou benn kuwu kano dóor ci loxoom ñoom ñëpp daal di wàcc lu ëpp fukki espace wàcc nañ ci benn ci benn waxtu nga gis ni maam Cheikhou amadu kenn moom waaye maam Daawur Jóob dafa gëmoon Cheikhou Amadou da ngay dégg ñu naan la dañu xare xare ba xare jeex bal jeex seexu ni jël leen ci suuf si maam Daawur moo nettali loolu génn góor goo xam ne bi mu faatoo yàggul mu ne ko keroog bi seexu ne bal jeex na puudar bi jeex na maam Amari Ndaag moo doon moo doon généralu jihaat bi moo woo maam Daawur ni ko neel seexu poudre bi jeex na maam Daawur bi mu demee seexu ni ko jël leen ci suuf si ngeen del ci fetal yi moo ko wax loolu waaye maam Daawur moo jël suuf def ci fetalam moom jóge mu tàkk mu ne ko gëm li Cheikh wax moo tax moom moom mu def loolu ba noppi door a dem wax leen ko kon yooyu dafa jar bi fësal tabaarakallaahu kon ku gëmoon Cheikh amadu ku gëmoon limaamul Mahdi yu mais xoolal yow li mu rafetee. Mhm. ni mu mhm. ni koy expliqué ak ki lay déglu. Mhm. ni muy leeree si moom. mais ba léegi cere ba daal maanaam yu bëri ñu koy nëbbu loolu loolu lan. waa xam naa nëbbu boobu lii. loolu loolu loolu loolu loolu dafa am ñu ñu ko yàlla dencal. bokk na ci yéen li ngeen tuddee seen télé bi Shams. xam nga jant dafa war a ñëw. ngir leeral lan moo tuddal nga ngeen tuddee seen télé bi Shams. ah amu fi woon euh, lu mu def du hasard. te xam naa ne lu mu def maam ndaa ko def loo. waaye yéen tuddee seen télé bi Shams. Mhm. TV. télé musta am canaba. Shamsu TV jant bi leeral àdduna. mag ñi sax bu ñu daan taal télé canaba dañ ko daan fubbal. bëgguñu woon télé. léegi ñoom mag ñooñu ñoo ñoo ñaanal ñi sant télé. pour ñu fësal liggéeyu mag ñi. bu leen fàtte abonné ci seen seen YouTube. Shamsu TV jant bi leeral àdduna. kon lii la doon xaar. tabaarakallaahu jàpp naa ne am ngeen ci mission bu rëy moo tax wane liggéeyu maam Cheikh Thiénaba bi ngeen def ngërëmal yàlla ngi ci yàlla ci yàlla defal ndam ñun dañoo waaye mag ñi mm-hmm. doon leen déglu mm-hmm. doon leen teew lu di bind mm-hmm. li ñuy wax yëpp du doo xam ni dañ koo inventé wala dara waaye ci képp paaru mag ñi lañ ko jëlee waaye am na ci yoo xam ne ñoom bi ñuy dund sax man ñeme ma ko woon nettali waaye tey lii ma wax ci alaaj taala bi muy dund xamoon naa ko waaye mënu ma ko wax ndax ñu bari dinañ xam alaaj taala Cissé day wax man benn ma keroog bi ma gisee Cheikh Omar Foutiou Diakhar tan mu ne ma yow Murtada Siise mm-hmm. mu ne ko yow de xam nga ma mm-hmm. yow kan mu ne ko naa Cheikh Umarul Fuutiyu mm-hmm. dama lay yónni ci ñaari kilifa kenn ki sët la ci maam Amari Ndaak kenn ki doom la ci Seydi Aj Malik Cheikh Abdoul Aziz moo wax loolu Baye Taala Siise jahratam du du gént <laughs> xam nga loolu bu buy dund nga koy wax du neex a wax uh-huh. wallaahi alazim moo ma ko nekk waaye la mu ko yónni dama cee xam lu baree baree bari ca ñaari kilifa yooyu dinañ ci yegg incha allah ma nettali lépp incha allah. moo tax jege mag ñi rek moo fi nekk. macha mm-hmm. li tax mag ñi nekk ci doon ci xaalu. Mm-hmm. wàcce kaamil lañ tàmbalee woon. Mm-hmm. mbir mi ëppi loxo ndax borom barke boo laalee ci moom rek. barke bi day gën a gën a ful. ñuy bernde bernde yi gën a bari. nit ñi di gëna walli ci ñun li dal gam lañ ko war a def dedet ginaawam la ay njabotam ñoko doon ñaanal wàcc kamil waye nak sunu benn maam dafa mës a nekk ca cana ba sek cana ba bawal daal di gënt ñaari jumaay urus ñu wacc ko ci tundu xaban mu daal ni ah li de mom xana lu rëy la lama yalla won daal di jël tankam doxé cana ba ba ñew fi ñukoy wax ya fatu ngom bimu ñewé Euh, maam Daawar ni ko lu doon say tànk mu ne ko damaa gént bi ñaari jumaay wuru si yàlla wàcc ko si sa dëkk bi mm-hmm. mu ne ko moo ne Fatou Ngom de loolu ñëwagul samay sët a koy wane ëllëg booba jumaa amagu fi as jàkk la fi defaroon ngir yàlla jàkka jooju mooy fii nga fekk fii li ci kéemaan mooy uh-huh. jàkka ji fii mu nekk nii ak fa ñu def jàkka ji du benn ñun ñoo amoon xalaatu tabax jàkka ji dem def ko fee waaye ndekete barabu jàkka ji am na jeexital bu fa ne fondement baa ngi fi ñun gisuñu ko woon mm-hmm. bay suñu daal xaar sek yalla na yàlla yokk leeram dafa ñëw cana ba xaban di ziar si goor gi di dox ay tankam di dox ay di dox ay jeew ba yag mu ñew ba ak jakka ji dan jakka ji di war won nek fi gaay xamu ñu limuy wax mu daal avancer wat ba bu tolloog fii yi ne mu ne fi la jakka ji wara ne mo fi ni rew du nek fi ci kanam réew bi bo di ko gis ñu am equation lan motax goor gi wax lolu mu ne digënté kër gu maggi djégo yi ngay dox ngir yegg ci jumaay naba ak digga digënté kër gu kër mam daawur ak djégo ya nga wara a dox ngir yegg ci ah, manam jakam ben la wara a doon mom la doon nat ndekete gis nga barab bom waxoon bañ ko waxé ci lañ fekk fondement bi mag ñi ne len fi mo doon jumaay mam mam daawur te kooku fekkewul loolu te lépp baatin la lepp lepp lepp baatin la tamit diko wax dafa baax tabaarakallah sëriñ Mar daal lépp mënoo su ko wax li du yëpp xajul ci nag bi waaye daal gàmmu xabbaan gàmmu wut barke la waaye dafa am particularité yi ci nekk mooy euh, ber yi dalay jaaxal ni muy baree ak ni muy barkeelee xam nga lu ko waral maam daawul lii Baye Cheikh Tidiane daan def moo ko daan def moo daan yàkk añam ñëw ci pénc mi taaj ko fi ku romb di sàmmi ku romb di di di di di bay mu ne la ñëwal ñu bokk ndabal yàllaa ngi bo ñëwee mu ne la soow ma ngi bo ñëwee mu ne la mburaké ma ngi bo ñëwee mu ne la ndawal ngi manam xéewal yépp ko doon wër motax tax gam moom loolu yàlla da ko barké moo motax xéetu xéewal yépp ngay gis bu ñu andé légui ma wal la spécial dibiteurs yi nga xam dañuy wék xar yi wék bëy di dagg di saaf di jox jaam ñi fii rek laaw tabarakallah loolu mooy gàmmu xabaat loolu moom dinañ ko dinañ ko dinañ ko woon gaay ndax ndax ndax at mi si topp gaay <laughs> gaay ñu gën laa insha allah <laughs> jërëjëf sëriñ Mar jërëjëf kontaan nañ wasalaamaaleykum wa rahmatullah bu leen fàtte abonné si sen sen youtube samsu tv jant bi leeral àdduna te activé cloche de notification boobee ngeen di seen si seen écran samsul huda amati afa شمس الهدى Samsu TV mooy suñu télé Samsu TV mooy suñu télé